ndigal li mooy jokko ndigal ne ko na ne inni araa fil manaami anni azbahuka fanzur maadaa taraa kon day mel ne lépp ci loolu la jóge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 bu leen yàlla nattoo ñu matale nattu ba kon day mel ni lépp lool rek la la la mel waaye loolu itam boo ko xoolee luñ ci mën a jëlee luñ ci mën a jëlee ah lan lañ ci mën a jàngate alquran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 li dal ci ndigal li dal ci kaw doomam. muy ku ñu yilif koo xam ne lu ne sañ koo xam ne lu ko sañ na ko ci moom. waaye teewul gis nga ni mu ko waxee. waaye teewul gis nga ni mu ko waxee. da ko wax ne an damaa gis si nelaw ñu ne ma naa la ren di kon xoolal loo ci xam.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 tëjee rek moom delluwaat ñaanal suñu ah, di tëjee rek dellu ñaanal suñu kilifa yi. muy Cheikh Mamadou Mountakha. yàlla bàyyi ko fi. ba naal solo yi nga xam ne. naal am solo yi nga xam ne naal na ko. jàpp naa dara jiitu ci ne dara jiitu ci te jàngukaay bii mu bëgg a taxawal ngir ñëpp jàng.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 li la ci borom yéene woon lépp sunu borom matale ko ci jàmm ci barke Bantuwa. suñu kilifa gii di sëriñ Cheikh Amadou. moom it ci yoon woowu rek la tege. moom li fi sëñ bi bàyyi woon rek ca la dundal daara yi. mu ngi dundal jumaa yi. te yëf yi loolu rek la. daara yeeg jàngukaay yeeg jaamukaay yàlla yi dong dong mooy mbir mi te mu ngi dundal. ak luy jëmale kanam mbir mi lépp rek. ak luy jëmale kanam yoon wi ak luy jëmale kanam yoon wi ak luy jëmale kanam diine. ah da kon ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo ni jiite kon kenn ku nekk yaa ngi ca sa warugar. kon nag ñun ñii leen topp. nan topp seen ginnaaw day déglu seen ndigal ne dox lu ñu doxal rek ñu ànd ceeg ñoom ñaan sunu borom ànd wàcce jàmm def jàmm ci réew mi def ko ci réew jullit yëpp def ko ci àdduna bépp nawet bi ñu tàmbali sunu borom àggale ko def ko muy nawet bu xéewale bu barkeel te nu muurloo ko barkeb seen tuwaa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 منكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا